xam-xam ak juddoo yem ak alal bu ci am njëlbéen te amul mucc rek yàqu na waaw xam-xam alal juddu ñoo yem bu ci am njëlbéen te amul mucc rek yàqu na waaw moo tax mu ni majdi axiran wa majdi awalan sharaun wa shamsu raada duha ka shamsi bi tafali waaw kenn déggagul dañu naan jant bi sona rekk diw dee na ne looloo jekk waaye jant bi la leeralal yoor yoor fa nga toog bu tàkkusaane it mën na la leeral bu fekkee jant piir la waaw waaw bu fekkee jant piir la rekk na mu leerale ca yoor yoor noonu lay leerale ca takkusaan waaye bu sooyee nag sona boobu nag pexe nekkatu yow koy fexeel foo ci toll rek nit ñi di la mën a jariñoo waaw daa wax yu nee na su ko defee mu mel ni boog jëf jooy jëf ak jëf ju mu manti doon jàppal ni euh, jumtuwaay la boo àbbee ca atelier yàlla yàlla sa atelier bii de bëgg naa cee dugg mu ni caabi jàngoog nga jël caabi ubbi atelier yàlla seet jumtuwaay yëppoog la nga bëgg a def nga ne ko yàlla bii laa jël mu ni demal bokk nee nag ñaarey mën a am benn nga génn tabaxe ko yàlla janoog tabax ba walla nga génn màbbe ko la yàlla tabaxoon waaw waaw yow nag yaa xam boo cay jël waaw nee na te it nee lislaam euh, mënula dund te ràbbuwul ci biir civilisation tax dañu ne l'islam civilisation la wante l'islam daf fi fekkoon ay civilisation ñu ni l'islam civilisation la wante mën nañu wax ni lislaam du mën a dund te duggul ci biir civilisation naka la loolu di mën nekk moom civilisation yi am ci lay dugg seet la gën mu def ko ci ñoom li gënul mu jeñ ko ba moo tax fokk mu dugg si ci biir aada yi mënul ñàkk moom lislaam su ko defee mooy lañu leen junjoon ca Tiwaawan wax ja yàlla waxoon ci li ilaafi qurayshin ilaafihim rixlata alchitaai walsayf falyacbuduu rabba hada albayt alladi atcamahum min juucin wa aamanahum min xawf atcamahum min juuc bisababi haatayn alrixlatayn wa aamanahum min xawf bisababi ixtiraamihi li hada albayt wa man daxalahu kaana amina waaw moo tax lislaam ci aaday jàmbur lay dugg euh, rixlata chitaai wa sayfa araba ko moom jëkk wàcc lislaam waaye bi lislaam wàccee defaral na leen ko ndax itam arab yi fu ñu dem di fa jéggi booba jamono ñu teral leen ndax dañ naan ñoo dëkk ca Kaaba ga lu mat a déglu la fu ñu dem rek marchandise ma gën ñu jox leen ko jaay leen ko prix bu yomb lu tax ñii kat ñoo dëkk ca Kaaba ga àggoon nañ ci bu ñu defee benn rihla ci jamono sedd dana leen doy dund ba tàngaay ñëw bu ñu demee benn rex la ci jamono tàngaay dinañ ci mën a dund ba sedd ñëw ngir jëmmi kaaba gaa ngi ci seen biir yàlla ni kon nag nanu def société mag yéen comme néeg bi moom gi ma ko moom ngeen dëkk fi mu ne moo tax ñu di leen teral ma barkeelal leen loolu ci néeg bi ngeen ormal ma néeg bi waaw mel na société dafay dal di dikk yàlla wàcce lislaam fekk aada yën nit ña baaxal man ko jariñoo euh, bala nga koo xam nga toppatoo ko lislaam bari na fi yiw wu mu fi fekk yiw wu mu fi fekk nag saxal na ko yépp nag foog nga xàmme ko ci biir lislaam yiw yi mu fi fekk te saxal ko ndax itam yàlla dafa dul ci lislaam rek la tàmbaleeg nit ñi ba mu tàmbaleek nit ñi kenn xamul kañ la kon nag jamono bu ne bu wàccee lëf la ca baax ñooña denc ko di ko jëfandikoo bu wàccee beneen diine diine ba du sañ dàq booba su ko defee it li nit ñi baax baaxle la leen di saxalal encouragé leen te pour ñoom itam ñu saxalal ko la mu ormal te mu dellu si ci jëmmam muy société digganteem ak nit ñi bëgg na nit ñi di góor lool ci lu jëm ci seen wàll bëgg na nit ñi di góor lool ci lu jëm ci wàll moom yàlla waaw moo indi loolu eh, ba moo tax mu am yitte gu day nag li mu am ci projet ki li mu am ci problème bàyyi ko fi di tudd jëgg gu waa Quraysh di jëgg lëf la waaw mooy ku ma fonk rek man yàlla ma fonkal la la nga nekk waaw li ma nekk nekk yàlla ak li ma bare bare problème ak li ma bare bare ay programme ak i projet ak njëgg li ma nekk nekk détail waaye comme yéen a ngi ci sama néeg bu ngeen ma ko ormale rek seen njëkk mi dal di bokk ci sama biir diine ji waaw loolu noonu la demee ba moo tax njàmbaar wàññiwul dara njàmbar wàññiwul dara njàmbar wàññiwul dara njàmbaar ci lu bëgg njàmbaar ci lu wut sonn ca ba gor yépp xam ne sonn nga ci loolu dafay tax yàlla gën a sopp jàmm ba waaw te eh, yonent bi wax na ci ñaari yëf yu am solo waaw bu jëkk bi moo di li mu wax ni nit jóge na tool walla nit jóge marché dox ca diggu yoon wa dégg jam ko mu soox ko ngir mënu ko sekki ca diggu mbedd ma ñëw ba ca këram mu tàllal tànkam ñu di fàkk digg tànkam di nàcc ba ñu génne ko nee na yàlla doxe na ci baal ko bàkkaar bu mu mës a def ci dundam waaw seetal loolu xam nga lu tax la mu doon wutee tax waaw njàmbaar ga mu am ba dem tool yi njàmbaar ga mu am ba dem marché ba di fa wutal lu mu am mook waa këram mooy tax dig boobu ko yàlla teg ci diggante bi yàlla ne meluma noonu waaw dig bi du man waaw kon nag su gaaree waaw waaw kon nag nee na bu dég bi gaaree rek danaa ci dëgg ma itam baal ko lu mu mës a def ci bakkaar waaw mu dellu wax ni nee na képp ku dee te fekk ñaari doom yu jigéen juddu nañu ci sa biir kër nga mat leen bàyyi yar leen ba ñu di njagamaar nga dee nee na na lislaam bi jàpp ni shahid nga nee na martyr nga doom bu jigéen nekk baayam yombul ndax war na yaru te ko brutaliser boo ca amee ñaar nag nee yàlla baal na la sa bakkaar yépp bés boo dee rekk martyr nga waaw ah. eh, kooku moo xam lu di responsabilité moo xam lu di nekk boroom kër moo xam lu di nekk baay waaw ndax doom bu jigéen dafa yombul yar doom bu góor mën nga ko dóor wante doom bu jigéen kenn war waxu la ni na ko dóor dañu wax ni nanga nga fexe ba mu ñeme la te bañ la yeb waaw na fexe ba mu ñeme la te bañ la yeb waaw boobu coono nag ku ca def ñaar safara wàcc na la waaw su ko defee ngeen xam ni yi ngeen di xeeb dugg ci boutique bi jënd suukar jëme sa waa yooyu ngeen di xeeb lu ngeen ci bareel te rafetal ko rekk mënul ànd ak yàlla di xuloo teg ëllëg ndax itam yooyu it yëpp bu ci nekk yonent bee ko waxal boppam ak itam xam ni nit ñi njabootu yàlla lañu waaw ba tax na it xam naa la sidna Aysa génnoon moom mi nga xam ni yonent bi mas àtte àtte na ko waaw te jigéen la moo tax daan na wax ni ndaw séléri laaj leen bu ngeen ma laajee seen genn wàllu diine yëpp laaj leen ko seen genn wàllu seen diine yëpp laaj leen ko seen genn wàllu diine xam na ko si naa Aïcha dafa génn seen benn waay buy dox mu mel na ku xaw feebar mu ni kële mbaadu dafa feebar ñu ni ko déedéet dafa dafa dëddu àdduna rek mu ni ko dab ko waaw mu ni ki mu àndal dab ko ni ko Umar ibnul Xattaab dëddu na àdduna te bu dee waaxu ku ko bëgg dab doo ko dab ku mu dóor gaañ la waaw ni ko dab ko nga wax ko ko waaw waaw moo tax yonent bi ku bëggoon yu deme noonu la waaw law kaana jaladu hada fi sabilillah daan na ko faral di wax nee na su ko defee nag diggante yàlla ak nit bu ko defee ak jaxasoo ngi ci goo xam ni nag yàlla fokk itam moom itam dafa am lu ko war nag yàlla nag mënul xëy nag bind nit ñi te tàgguwu leen indi leen ci àdduna teg leen coono bu day na bi mu leen teg muy coono bu war a jur xam-xam ak yépp nag nattu ya cay gaar nag mu bëgg ci dëgg nag pour nag nit ñi kenn ku ne mu tëral la rendi la kooku mënul nekk nag waaw ah. kooku mënul nekk moom it fokk mu am fu mu leen féete waaw loolu moo tax mu ni xudu zinatakum inda kulli wa kulu washrabu wala tusrifu waaw kulu min tayibati ma razaqnakum ak wattaqi fi ma ataaka allahu daar al axirata wala tansa nasibaka min ad dunia waaw foofu nag la yàlla waxante nit ñi nit ñu ni ko wax d'accord yaay yàlla mais bàyyi nu nu nekk nit ñu nitam mu ne ay kulu min tayibaati ma razaqnaakum ak wabtaxi fi ma ataaka allahu daar al axirata wala tansa nasibaka min addunia waaw foofu nag la yàlla waxante nit ñi ñu ni ko wax d'accord yaay yàlla mais bàyyi nu nu nekk nit ñu nitam mu ne ay mu ne ay kon nag jàkk ji maa ko moom waaye bu ngeen ci dem sañse leen ba wex xat waaw julli gi dellusi ci man sañse bi dellu ci yéen d'accord ñu ni d'accord waaw waaw waaw waaw ah ñu ne ak lan mu ni kulu washrabu wala tusrifu ñu ne ñam yu neex yi nag mu ni lekk leen ñu ni ndox yu sedd yi nag mu ne naan leen lu dul ci charte bu leen ci fër mukk waaw parce bu ngeen fëree tooñ ma ndax ndax ëpp ngeen ko nit ëpp na di fër waaw ndax daf ma jege ba lu lu lu ko tuutal waru ko def waaw kon nag d'accord lekk leen ci na mu gën neexe naan leen ci na mu gën sedd wante bu leen fër waaw ñu wax mu ni wabtaxi fi ma ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia waaw li ma la may ci kàttan ak xam-xam yépp jox ma ko waaye génn ci sa wàll ba noppi na daal kudul ñoom nag moo tax mu teg ci wala tabxi lfasada fi l ard inna allaha la yuhibu almufsidin walmufsiduna hum tuwaatu l umma wa dawu bitalatiha nee na nag bul yàq sama suuf si jaaral foofu ma la wax rek parce que yàlla bëggul yàqkat yi ñu ni ko ñan mooy yàqkat yi mu ni mooy ñi ak ñi tayal waaw ñi tayal ba duñu xam sama wërsëg mukk yàlla ne daal tooñ nañu waaw ñi yiwa di ba ñu def lu yiw mukk nee na tooñ nañu waaw nee na ñuy ñaar daal la ko tooñ parce que kii yiwa di dana tax doo xam jaamu yàlla foo tollu di ko muulu waaw ki tayalit dana tax doo xam wërsëgu yàlla ndax du jëriñanteeg yow mukk waaw bu ko defee nag ñu ni yonent bi lan mu ni mu dellu ca ñaan ga rek rabbana atina fi dunia xasanatan wa fil axirati xasanatan waaw alxasanatayn moom rek moo am yàlla may nu teraanga ju kenn amul ci àdduna may nu teraanga ju kenn amul ci àllaaxira nee na jàmm bu ne moo yell ci yow baaxal ci àdduna ba dee dem alaxira di fa baax ba faw waaw waaw nee na su ko defee it rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi l axirati ak li yonent bi wax niamal wax bu gàtt ba na wallaay alal ju yàlla teg ko ci loxo nit ku yiw nee mooy yàlla ak jàmm waaw nee loo yiw yiw ci àdduna nee na tu utuloo alal bu yiw nanguwuñu sëg yiw nee na alal it lu mu yiw yiw ci àdduna te teguñu ko ci loxo ku yiw nanguwuñu yiwuk alal ji ndax bu ci nekk rek gàllankoor lay indi waaw parce que boo yiwee te amuloo it loo faje sa soxla sëg yiw dafay dal di jeex ndax koo gis teg ko soxla waaw waaw dana su ko defee alal ji yiw bu fi nekkee te joxuñu ko ku yiw it alal ji yiwam dafa dal di jeex ndax kuñ ku ñu gis mbalee la ci ku ñu gis rek mbalee la ci maa ko am amuloo ko mballe waaw waaw nee na su ko defee naa mu xaw deme ni mbokk ma doon wax mbokk mu jënd otoom di wax chauffeur bi rombal foofu sama noon a ngi waaw waaw waaw rombal foofu sama noon a ngi fi boo fa rombee na nga ko mbiibal waaw yooyu yëpp ci xeeti yiwét di rek la waaw waaw ah wara day tali ñoom lu ñu wax rekk am na lu tax waaw lu ñu wax rekk am na lu tax te nag su ko defee nag boo seetloo loolu yëpp dangay xam ni lislaam xalaat la bu nga xam ni nit ku ne mën na ko jariñoo xeet wu nekk mën na ko jariñoo ndax itam li mu jublu rekk moo di fexe ba xettali nit mu génn ci li ay baayam nekkoon te baaxul ci ni ko alquran waxe xam nga alquran a ngi wax ni nangam ci laa fekk sama baay kenn du ko wax nee na kenn du ko wax alquran tere na ko nangam ci laa fekk sama baay bu fekkee ni la nga fekk sa bàyyi nee na musiba la nag te da ko bàyyi da ko bàyyi da wax ni maa ngi ci dëgg rek mu jeex sa bàyyi ak sa maam bu ci sa yoon nekk waaw maa ngi ci dëgg jeex na waaye sama bàyyi ci nangam laa ko fekkoon bu fekkee loola musiba la kooku doxul waaw nee na boobu rek moo ci wàllam mu xaw dellu ca la abu tayibil mutanabbi waykat la ku man way la wayam way yu yéeme la eh, te it eh, way bi mu way kaafuur wax ko ni ko fa in tafuqil anaama fa in tafuqil anaama wa anta minhum fa inna almiska baadu dami alxazali kenn mësu ko dégg mu ne ko su fekkee yaa kawe nit ñi ni nga leen kawe te bokk ci ñoom ñu di say mbokk jaaxalunu dafa am fu ñu jaar ak yow fu ñu jaarul ak ñoom waaw mu ni ko fa ñu jaar ak deret ba mu nekk misk dellusi ci kër gi ñu tëj ko ci armoire te la des ci deret ñu ñu ñu am lu ko sànni ko ca bopp dëkk ba li dellu si ci kër gi dafa am fu ñu jaar ak moom waaw waaw li ñu jaarul ak moom fenn nag ca àll ba la jëm waaw ndax misk ci deret lay jóge parfum la mais ci deret lañ ko liggéey waaye buñ ko ci liggéeyee ba noppi kenn dootu ko boole gi ñëw buub yi di sànn ci àll bi ñu ngi ko denc ci biir armoire bi waaye nit it bu ñu jaareeg moom fi ñu jaareeg misk ñañu fa jaarul ak ñoom bu ñëwee it kawe leen rek waaw ah, fa in tafuqil anama wa anta minhum fa inna al miska baadu damil ghazali mu jeex waaw ah. moo tax nit kenn du ko natt ci woy juram ci taxawaayam nga ko natt ndax kat woy jur li muy foor foor foor bokkul ak nit lu mat a xam la woy jur xamul fi yàlla jaar ba tabax doom ba mu génn xamu ko looloo tax nga xam ni seen responsabilité ak responsabilité ki génn bokkul du benn ba taana boo fa ne yëm ñu rekk toog fa def nga musiba waaw waaw dëgg la say waajur dinañu àgg foo xam ni di leen sant ndax di nga xam ni lii ñooma waaye itam am na wàll goo xam ni nag boo ca àggee lànkal du ñu la tee jaar fi góor ñépp jaar waaw bu la rëbbee sax du la dal waaw ene su ko defee sa taxawaay rek moo ci am solo benn woykat wax na ko ci wax bu am solo nee na nee na ci ci ci boobu ci boobu wàll e, màggalal sa jur nangam nangam say jur ñoo la tax di dund nangam ma haddi bi nafsa haddi bi nafsa bil ulumi la bil walidayn هذب النفس بالعلوم لترقى وترى الكل وترى الكل فهي للكل بيت هذب النفس بالعلوم لترقى وترى الكل فهي للكل بيت هذب النفس بالعلوم لترقى وترى الكل فهي للكل بيت إنما النفس إنما النفس كالزجاجة والعقل سراج وحكمة الله زيت واو إنما النفس كالزجاجة والعقل سراج وحكمة الله زيت فإذا أشرقت فإنك حي وإذا أظلمت فإنك ميت بس آه. هذه النفس بالعلوم لترقى وترى الكل فهي للكل بيت innama annafsu ka zujaajati wal aqlu siraajun wa xikmatullahi zaytu fa ida ashraqat fa innaka xayun wa ida adlamat fa innaka maytu waaw waykat bi nee na na nga sellale sa bopp ci sa xam-xami bopp ndax nga mën a yëkkatiku neena na sa bopp néegu lu mu doon la nee na sa bopp néegu lu mu doon la sa bopp mu kon nag lu dikkul ci yow la waaye sa bopp néegu lu mu doon la nee na sa bopp nee na mooy weer bi nee na sa xel moo di mees bi ci biir nee na xam-xam bi yàlla may nit démb te ku judd mu jox la ko kaweley way jur du tax mu ëppale la ko ña ca des tuutale way jur du tee mu jox la ci la mu toll nee na mooy pétrole ba nee na su dajee nag nga taal dund nga ñépp ni ma nga nale su dajewul nag mu lëndam kenn du la gis yaa nga bokk ca ña ca bàmmeel yi nee na ba na daal nee na taxawaay la boo xam ni fokk ñi te koy amal boppam dëgg la way jur am na luñ ca mën am na luñ ca mën waaye la ci ëpp dal yaa koy taxawal sa bopp nee na bu ko defee taxawaay la boo xam ni ñaari sëy benn benn sëy sëyu ñaari pas-pasay mën a tax mu judd sëyu ñaari pas-pas pas-pas bi nga am pour sa bopp te du génn sa bopp mukk subaak ngoon ngay surveiller sa bopp di natt sa kaddu di natt sa jëf di natt sa wax di natt sa liggéey lu ci ne nga teg ko ci teguwaay ba mu jeex ak pas-pas bi ci mbooloo mi lu mbooloo mi baaxle nga fekke lu mu baax baaxlewul nga wacc waaw sëyu ñaari pas-pas yi rekk moo mën a jur jëmm jooju nee na lu ko moy rek nee na doomu aadama dafa ci kaw ay duusi géej rek duus bu moomee rek bu ko sànnee ba ca des jël ko du xam fu moo teere ji nee na looloo ca mujj dafa mujj dellu ca kaman laa yadri acharrun urida bi man fi l ard am arada bihim rabbuhum rashadan waaw dafay mujj dellu foofu rek kaman laa yadri acharru urida bi man fil ard am arada bihim rabbuhum rachada waaw ah yàlla mooy nettali ni lu xew tey xewoon na bu jëkk ni nit ñuy jaaxle tey jaaxle woon nañu démb bu ni toll di wax ni itam yar boobu mu wax boo ci jaarul ba duus yi amee la di la sànnente les daa dema dem ba doo xam ndax yàlla dafa bind nit ñi pour yiw wala daf leen a bind pour musiba dootoo ko xamee musiba ma yépp yàllaa ko mujj yanu ji waaw bu ko defee nag mu mel na boobu yàlla dafa jëm ci wàllu fo ndax bu jàmm amatul dafa mel ni boobu yàlla dafa fo waaye nag a afa xasibtum annama xalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turjaun fa taala allahu almaliku alxaq waaw nee na yàlla bindul nit ñi ci fo waaw dafa mel na ñu ci la ñu jëm daanu ci agsi mu mel na daal li daan xew bu jëkk mooy xew léegi nit ñi bu ñu jaaxle ba jaaxle dañoo defe ni yàlla xëy na foo taxoon mu bindi nit ñi parce que da nga dul xam kenn ku ne fu mu jëm fan la waaye fekk na demewul noonu nee na su ko defee itam dafay tax relation yu war a am ci diggante pénc pénc ci diggante nit ak nit dana dema dema dem ba xaw doyadi dana dema dema dem ba nga defe ni sax nekkul dina dema dem ba kenn ku ne defe nga ni sa morom la mu laa fonke moo di rek gën ko ñàkk yërmande gën ko ñaaw wax ñu doon caa dema dem ba wut penc moo xam ni nag yasuudu fiha sawtu alxamir waaw te wa inna ankara al la sawtu alxamiri law kaanu yaalamuun waaw boo demee dema dem bee ah penc nii daal ku fi dàq saaga dàq fi xuloo rek lañuy may jàmm kon nag naa fexe ba bu ma kenn dàq saaga bu ma kenn gën a naqari deret de na jóg di ko defante defe ne yaa ngi ci sa fulla yàlla moom ci alquran sawtul xamir la ko tudde baatu mbaam ŋaaxu mbaam waaw yàlla ko tudd ci alquran nee na am na nit ñoo xam ne ŋaaxu mbaam lañu ñu dese te wa inna ankara al aswaati la sawtu alxamiri law kaanu yaalamun yàlla ko wax ci alquran nee na baat yëpp baatu mbaam laa ci gën a laa ci gën a mën a mën a dee supporté waaw man yàlla waaw ndax na mu yaatoo njëriñ la tolluwul waaw waaw waaw ah njëriñ la tolluwu ni ndax tabarkalla xam naa dana di yenu waaye rek it boo ca dajul la mu ca daj yen ba des gannaaw waaw ah, waaw waaw kon nag ana njëriñ la moom moo la ko yenul waaye fokk nga sonn comme moom waaw boo sonnul comme moom fu mu seen kan parce que yéene defi yen bi yaa cay nekk di xare moom munu dana ci dugg waaw waaw xareeg moom xareeg moom xareeg moom ba nga passé boobu fu mu seen oto di ñëw mu fas yéene jaar ci tali bi oto bi booleeg mara day tali nga dàq fi xaj fi mu lànk rek loo ko sonal dana la sonal lu ni toll waaw waaw waaw moo tax ni ni ni ni coow li li toll wu ni wa inna ankara al aswaati la sawtu alxamiri law kaanu yaalamuun walla mboot mu dellu si ci la mu wax al ankabut waaw allati ittaxadat baytan te wa inna awhana albuyuti la baytu lankabuti law kanu yaalamuun ndax itam bara pexe nekk ci dëgg ko gën ndax yàlla moo ko lépp ci jargoñ ni mu bare pexe xamuloo fu mu nekk ci néeg bi wante boo yeewoo fekk mu ràbb ci néegam rabbin woo xam ni la mu caa du la ko wax waaye it sa baaraam rek nga caa lonk mu sotti waaw sa baaraam nga ca lonk mu sotti moom moom du soxla nga génn néeg bi moo tax yàlla fekk lu tuuti ak lu mag bu ci ne mu léeb léeb ci mbaam bu dee ñaax ñëpp dégg ko waaye boo ko bëggee faj loo soxla mu lëjën la ba dootu bëgg soxla bi faj jar muus muus ba doo déggaay tànkam fekk fenn ci néeg bi waaye boo yeewoo fekk mu def kër ci sa biir kër waaw daa bare pexe rek waaye ci biir bari pexem te tegu ko ci dëgg ndax waxuñu ko mu dugg ci sa biir ne càll ba lañu ko wax waaw ba tax na li mu ci ràbb it yàlla du la ci sonnal te benn baaraam rek nga ca lonk mu jeex waaw nee na ba tax na daal nee na nit ku nekk nee na ñaare la siq lu ñoo tuddee an nazaa an nazaatu l insaniya ak lu ñoo tuddee alwaay alwaayu l insaniya an-nazaa defe naa soo ko bëggee traduire ci waxu moo war nekk condition alwaayu boo ko bëggee traduire ci waxu tubaab moo war nekk conscience nit an-nazaa moo ak alwaayu sa condition ak conscience bi war a yenu condition bi yii rekk ñoom ñaar ñooy nit condition bu nekk nag ci nit ci nit ki la aju waaw condition bu nekk nag ci nit ki la aju ci yitte nit ki la aju bëgg la tabia am na lu mu dul mën a yenu waaw tabia am na lu mu dul mën a yenu te moo di ñun daal fii ci Sénégal suñu condition moo di euh, gerte bu ñoree ñu dundal njaboot yi takk ceyti yi gane ganeyaan yi nangam nangam wax wax ba àggal mais kooku mi ngi aju ci loo xam ni genn wàll gi nga moom genn wàll gi moomuloo ko mu ngi aju ci taw bi tareen tawul mu mel na bopp li ren di tawadi tawadi yàlla moom bëggul sa personnalité yëpp ñàkk taw bi na ko sa poche yëg mais sa personnalité bu mu ko yëg na ko sa poche yëg mais bu ko sa personnalité mukk yëg bu ko sa poche yëgee li tax sa personnalité du ko yëg mooy mën nga am yitte boo wutee lu remplacer gerte mu ngi aju ci sa yitte ki nekk ca tool ba di am fukki junni ci gerte gi amu ko ren waaye ñëw na ci marché bi jaayaatu ba am ci fukki junni benn la ki ko mënul ci réew mi mu takk ndiggam génn wuti ko fu mu ko mën a ame ji kooku bëggul woyofu poosam personnalité am ko ba looloo taxit yàlla wax ci li mu ci wax ci alquran ki réewam amul ren mu génn du wuti maa ngi ko garantiral ni fu mu dem danaa ko melal ni réewam waaw maa ngi ko itam ni bu dee ci yoon wi martyr laa koy jàppe ndax ci ci ci eh, ci eh, sabilillahi la nekk ci la nekk wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fi l ardi muraagaman kasiran wasaa waaw yoon wi yépp yàlla ko koy nooyalal waaw tax na condition nit moom la ci nit ci boppam man bare na waaw te it boo ko seetee ci sunu mbokk chinois yi di nga ko mën a nangu ndax jigéen joo xam ni yàlla ngi dogal sa di xare sa di xare ci biir xare bi yaa ngi ëmb yow jigéen ji fi ngay ci bal yaa ngi dal ci sa wet ba danga mucc rek ñu dawale la doom ji xamuloo fu mu jaar ndax dee na ci bal ya wala deewu ca wala for nañu ko xamuloo ci dara doom boobu topp ay loxo ñu dawale ko tasaaroo bi tax na kenn xamul ndeyam kenn xamul baayam mooy xale bu jigéen juddu màgg tuuti am ñaari at ñett commencé di mën a daw ñu di ko yenn bool bal ya ndeyam doon dégg mu di ko dégg ba xëy nekk ci jànq xam ku daanu ci toolu xare naka la laa faje ndax ci la dund ba bëgg ci bal dootu ko dootu ko dootu dootu ko déranger kooku nasaala ba moo tax koo gis rek mu ñaawal kanamam walla mu ñaawal njortam yaa nga gis jigéen joo xam ni nazaam moom mu ngi àgg ci ci xare la judd màgg ci ba bal yi takk du ko génne waaw boo demee léegi ba gis lii dal suñu mbokk chinois yi daa xam ni nazaa lu rëy la ci doomu aadama et que nit lu mu mënul euh, euh, lu mu mënul wàkk amul nit lu ko nar a wàkk rek mën na wàkk loolu ba jariñoo ko waaw waaye nag boo miinul loolu xamuloo lu dul jàmm eh xamuloo lu dul toogaay xamuloo lu dul tayal xamuloo lu dul loo bëgg jigéen ñi defal la ko daa dema dema dema dem ba ba ba lu dikk di sa musiba waaw daa dema dema dema dema dema dem ba lu dikk di di sa musiba waaw ba tax na it di bàyyi xel ci ni an nazaatul insaniya lu am solo la bàyyi sa xel ci ni alwaayul insani lu am solo la te itam li gën a am solo yëpp mooy nit xam la mu bëgg ak fa mu jëm loolu rek moo am solo xam la mu bëgg ak fa mu jëm waaw su ko defee euh, lu am solo la waa bu mat a bàyyi xel la fii ci Sénégal ndax yàlla ko def muy réewu teranga di réewu eh, neex neex neex jamono nangam nangam nangam nangam nangam nangam wante it adduna mën na woyof waaye adduna it mën na diis boo defee bàyyi sa xel ci sa bopp xam ni lu dikk war nga ko mën a dominer it lu ama ama am solo la waaw su ko defee di dund xamuloo ni ñun ñi léeg-léeg dinañ ci am ay xalaat yu doy waar ndaxitam itam mbooloo mi nga bokk yëpp ak li ngay wóolu wóolu borom mbooloo mi yëpp du dàqonte ak sa personnalité bët kooku def dul dàqonte ak sa personnalité bët te it léeg-léeg nga dema dema dem ba def inventaire sa sa jëriñu ci biir mbooloo mi ak sa jëriñu ci sa bopp te di ko seet bu ci ne fan la tolloog nu mu toll daa ci dema dema dema dem ba tabarkal la doo wóoloo di ko sa kilifa waaye xam jamonoog natt jamono dana tax moom sax danga dem ba barkeem nga teg ko ci balance bi dara la ci dul man ba xam loo jëriñu ci barkeem ak loo jëriñuwul ci barkeem ak loo man jariñoo ci barkeem ak loo mënul jariñoo ci barkeem dafay am li nu wóolu Babacar Si di ko wóolu Maodo di ko wóolu yonent bi yëpp bés bu ne loolu am waaw waaw bés bu ne nga teg seen barke seetloo ci man jariñoo loo xam ni daa ko mën tudde seen barke ak loo xam ne nag sa digganteeg yàlla rek lay doon waaw nee mu xaw demee nag nii war na nga dem ba sa a boobu nga teg ko teg sa waay eh, dàq nag lépp luñ la waxoon nga dàq ko li la sa sëriñ waxoon nga dàq ko li sa baay waxoon nga dàq ko teg sa nazaa ak sa waayu bopp ba ñoom naka lañuy ñuy dàkkoore ak li la sa sëriñ wax ak naka la ñuy dàkkoore ak lii la sa baay wax fokk mu am sama sëriñ ma wax nangam sama sëriñ ma wax nangam sama baay ma wax nangam sama baay ma wax nangam nga dema dem ba jamono ñëw foo xam ni li la sa sëriñ wax mën a toog ci jariñoo dal jamono dema dema dem ba li la sa baay wax mën a toog ci jariñoo dal daneen di am daneen di am moo tax bu la si sëriñ rawee du mu ëpp doo ko mën a layil bala nga mën a layil si sëriñ ngeen xaw tolloo àlluwa waaye su la rawee du mu ëpp doo ko mën a layil mënul nekk waaw waaw waaw sa baay itam bu la gënee xam àdduna den bu ca soree dootoo ko mën a layil dana am jamono nag nga dem ba sa xam àdduna tolloo ak bosam nga soog a mën lay bosam waaw waaye soo ko deful doo dem mukk loolu la yonent bi wax ni ku ñu jurul ñaari yoon sa affaire du dox waaw jurul ñaari yoon sa affaire du dox yi ni loolu mooy lan mu ni ndeej bay ñoo jur jur bu jëkk bi ngénte tudde ko diw mu dem dema dem ba ni gëm nag yaa ah, léegi kat kenn juratuma maa jur sama bopp waaw jur boobu muy jur boppam nag yonent bi nee na ku sa mbir baax foofu la baax waaw xamal ni jur sa bopp baax na di nee su ko defee itam am na lenn lu xew lenn li xew moo di ñi am xam-xam te fasuñu yéene ñi ci des mukk xàmme am ñi am alal te suñu yéene ñi ci des mukk am nee na musiba nee na ëppatu ko ndax nee na it boo yeewoo yow rekk te ñi ci des yeewuwul mboolem ku yeewuwul yaa ko yenu ji seetal loolu ku wara a ànd ndëg nit ñi di dox ba mu jéetul lu dul yenu leen di dox foo jëm te loolu yeewu te yeewuloo ñi ci des a koy war waaw te it am itam te bàyyiwuloo ñu ci des ñu am ci kooku itam nee na li muy jur moo di teraanga joo bokkalu kenn nee na coono lay mujj nekk maanaam an nazaatul insaniya wal waayul insani ci ni ñu ko mën a déggee an nazaa mooy li nga fekk li nga fekk nag bul ni rekk lii laa fekk fexeel ba bu nammee wàññi ci sa fulla dara nga xam ni yaa ko déggul wala taxawaay ba ca war defuloo ko mooy ci juddu rekk fekk gerte rekk mu ne gerte laa xam man mag ñi gerte lañu daan bay lu dul gerte duma ko bay ba ñàkk taw dikk ci moom dana xam ni gerte rekk yàlla amu ko ci kaw suuf waaw waaw yi nag mooy wone ni nit nga moom e, mooy wone ni sëriñ bi na ko màgge baay bi na ko màgge buur bi na ko màgge waaye yaa ngi tàmbalee nangu seen mbir fi ñu tàn tàmbalee nangu sa mbir waaw buur bi la faalewul dootul sa buur baay bi la faalewul dootul sa baay sëriñ bi la faalewul dootul sa sëriñ demal sa yoon wuti beneen buur wuti beneen bàyyi wuti beneen sëriñ waaw booba noonu rek la toll nee ba tax na daal foofu la dimbalante war a dikke nag ndax benn défaut mi ngi am ci Sénégal boo sañoon ki ngay jëriñ du màgg mukk ba mën a jëriñ boppam waaw ndaxitam defe nga ni bés boo ko jëriñatul mu wéetal la te fekk na kooku ak réer la kii nga xam ni kay boo teddee mu tedd sa man-man yokk waruloo ko añaane mu tedd waaw waaye nag boo gisee borom kër yi ku nekk di waaxu naan li may defal diw li may defal diw lim ma faye li may defal diw lim ma faye nangam maa ngi ci tabaski ji maa jënd xar maa def li koo gis mu di ko wax rek du nit ndax itam dafay indi aada bu bon aada bu bon bi moo di danga ci dem ba doo sañoon ñépp seen njëriñ di jaar ci sa loxo te nag réere xéewalu yàlla la waaw kooku réere xéewalu yàlla la waaw nee su ko defee ñaari bakkaar a ngi ci bakkaar bu jëkk bi moo di moom yëgloo gi nga ko yëgloo ni ko surga nga moom it mu yëg ko ba fas ci yéene nekk ba xëy wuy ji boromam yaa ko ni surga nga yaa ko jox ruuxu surga rey nga ko waaw waaw su ko defee moom it rey na la ndax ku fas yéenee nekk kilifa ba faw sa dund yàqu na yow kay del boot waaye ku fer bàyyi ko mu dox ak tànk waaw waaw waaw waaw waaye su dee ku ku fer nga ni naa ko boot keneen fer nga ni naa ko boot sa gannaaw du ko fekki waaw ba tax na ba tax na nee na bi ci gën a am solo nga xam ni ku ne xam ne ni lii difficulté la bu am solo moo di nga yaru ci milieu boo xam ni milieu ba nanguwulaa may lu dul ci benn nattuwaay boo xam ni boo demee ba sa biir ëpp nattuwaay ba it moom du la bàyyi nga paase nattuwaay bi nee na musiba mu rëy la te loolu dafay am di nga jur doom mu nekk ci biir kër gi dema dama dema dem ba fullaam ëpp sa fulla bu fullaam ëpp sa fulla nag càkkutéefam mooy ëpp sa càkkutéef bu sa bu càkkutéefam ëppee sa càkkutéef itam ñemeem mooy ëpp sa ñeme soo ko bëggee nag wàññeeku ni ko la ma xamoon rekk ngay xam yaa tooñ sa bopp tooñ ko waaw kooku it mënul nekk kooku it mënul nekk su ko defee ca la ñu dema dema dem ba ngëneel yi yonent bi wax ci tukki yépp looloo ko sabab dama dem ba pénc ma nga bokk mënatulaa may nga jot sa yittey bopp yonent bi ne demal sa yoon wutil ñu ci seen yitte ak moo gën lu ko mooy boo fa toogee daañu la tànc ba sa yitte fay ne nit waaw doo ko jëriñoo mukk lu ko defee nag dinañ ko xam nun ci suñu réew yi suñu réew yi nangam bu nu masaan nekk di jaay gerteeg tes tes tes tes tes daan naa ko dégg ci jigéen ñi waaw waaw sa baay am lu nekk nga jaay gerteeg ngay def lii ngay def ñoom duñu xam sax lu xew waaw duñu xam sax lu xew su ko defee mag ñu bare at ñu ma njëkkee jënd gerte ci Tiwaawan mag ñëpp saisir nañu Sëriñ Babacar ñu mu ngi ci euh, euh, bastul yéeg di peese gerte ci yi barke maamam ëpp na loolu man la sama barke maam ko ëppoon du ko def du ko ëppoon du ko def waaw ah. ah ñoom dañ dul xam Maodo daan nekk ci biir Tiwaawan këru tubaab gone mu yónnee fa di leb dépense mbaa muy leb dundu këram bu nekkoon ca këram dana ko def waaye amul jot def ko ndax bu ko defoon joteeg nit ñi ñu lu tax mu bàyyi këram dem di jaayi gerte benn werante nekku am na yoo xam ni aada rek la waaye tegu ñu ko fen kenn lañ ko tegul yow sa baay li mu am xam nga ko li nga bëgg xam nga ko sa bàyyi sa soxla mën na lekk soxlaam téeméeri yoon jamono koo indi xamuloo ne xale yi dañu xër du dëgg jamono koo indi daa dem ba ëpp sa bàyyi soxla lu jaadu la waaw kooku lu jaadu la waaw ah. nee na su ko defee itam boo ko seetloo ci boobu wàll nga gis eh, ni déggu lislaam jafe na jullit yu bare te lu ñu jàng jàng jàng jàng alquran wala lu ñu jàng jàng xadis rek dégg ki dal di des ndax it yooyu li ngay xeeb te nga xam ni du nekkul sa àdduna yàqu boo bu sa waa kër xiifee sa jaamu yàlla yàqu bu sa waa kër maree sa jaamu yàlla yàqu bu sa waa kër rafle sa jaamu yàlla yàqu dara nga ci mën waaw ndax yàlla personnalité koy jaamu yàlla personne du ko jàmm personnalité koy jaamu te nag personne bi bu matalewul ay waru garam personnalité am damm te bu personnalité am damm yàlla dootul am ku mu waxal waaw loola tax